may nuyu aussi vedette yi fi nekk yëpp mooy les lutteurs di nuyu waa CNG di nuyu sportif yi ngeen may moom a beral nuyoo ministre yi fi teew ministre bi yor wàllu koom-koom te ñu dénk ko FONGIP dinaa ñëwaat ci FONGIP ministre Ablaye Seydou Sow ministre de l'urbanisme di ko bëgg sport fu ñuy wootee sport dafay teew di nuyu président CNG muy koo xam ni ku compétent la bëgg liggéey la dama koy seede en tant que ministre des sports moo tax biñ ma ne mandat bi jeex na mën a SG bi à renouveler automatiquement parce que c'est un homme engagé ku bëgg liñ ko dénk jëm kanam may félicité di nuyu administratrice su FONGIP Thérèse Faye di nit ku engagé ku fonk liggéeyam ku bëgg président Macky Sall mais ma xam ni aussi président ku ko fonk la président ku ko téela la c'est une femme engagée te li ñu fi dajale tey wane na may nuyu ñiy yëngatu ci lutte yëpp surtout ñi nga xam ni li ñuy def ci lutte ñoom ñoo koy siiwal je pense aux communicateur c'est des voix que nous reconnaissons souvent sax boo demul ci làmb ji nekk sa oto di déglu reportage yi da ngay dem ba xam leen ñoom ñëpp jàpp ni gis nga leen jàpp ni yaa ngi toog ak ñoom fekk mosoo leen a gis tellement ils sont engagés pour la lutte xam nga nit ki lu muy def te jox ko ak xam dafay feeñ mais bu ko joxee ak xam dem ci ba jeex man gëm naa ni yàlla la ko ciy fekk may nuyu sunu artistes yi parce nee naa léegi lut culture la sunu artistes yi ñoom bokk nañ ci ñi tax tey jii fi lutte yegg ñoom ñu joué ci rôle bu am solo dinaa ñëwaat ci li ñu fi dajalee mais dañu fi ñëw fekk fi loo xamante ni aussi am nañ ci mbégte muy tout ce public bi nga xam ni sport dafa leen a neex ñu ñëw di sargal président Macky Sall c'est vrai da ngeen ko gis wax ko. seen mbëbët ak li ngeen bëgg mu jàpp ni lii ngeen ko wax taxaw na mi ne na ko gouvernement bi def FONGIP mi nga xam ne moo ci féete ñu dénk ko ko ñu def ko ak rapidité ndax bi ñu dajee ak président ak léegi yàggul kon tey jii bu ñu amee mécanisme de garantie buy tax promoteur bi mën a am fu mu wéeru ñu mën ko mettre en face d'institutions financière mu mën a leb mën a tëgg kombaam loolu mënuñu lu dul rafetlu vision bi président Macky Sall di leen xamal nii lu ñuy yokk la lu ñuy dëgëral la et incha allah dans le courant de l'année deux mille vingt quatre dinañu wax FONGIP ñu xoolaat taux d'intérêt yi bonifié ko de huit ñu wàccee ko ba six seen commission ngeen wàññi ci zéro vingt cinq ba zéro cinquante pour ñi nga xam ne ay promoteur lañu di mën di leb à bas pour que li nga xam ni dafay rusee ci làmb ji ñu mën ko bokk ak lutteurs yi naturellement mën ko bokk ak ñi nga xam ni dañuy yëngatu ci làmb yëpp muy tout l'écosystème ni ko tubaab bi woowee ndax làmb culture la làmb business la war ngeen cee dund war ngeen cee defaru defar ci seen njaboot war ngeen cee waajal seen ëllëg bu ma nee ëllëg je pense au lutteur ki nga xam ni carrière ci diir bu gàtt la peut-être dix ans bu baree ba bari quinze ans bu teelee commencé peut-être à seize ans dix-sept ans bu da amee dix huit ans bi muy dugg ci euh, majorité bu amee trente cinq ans dafa war a mën a defi leneen te loolu foog ñu organiser ko waajal leen te li président Macky Sall def mooy jéego bi ci jiitu ginnaaw bi mu leen defarale arène bi danañ ci waxtaanaat ni ko Pape Abdoulaye léegi comprendre nañ ko li xale yi di wax jilli nañ ko dinañu renforcer mécanisme bi tey jii cinq cent millions la mais avec un effet levier de un milliard bu ngeen ko téyee ni mu waree parce que ñii ñu war a defaral ci sport dañoo bari kon déwén dinañ ci mën a dolli yeneen cinq cent millions comme sangeenam ngeen am effet levier de deux milliards bu yàggee toute une économie dina juddu ci lutte nga xam ni ñi ci def culture ñi nekk ci animation ñi nga xam ne dañoo nekk ci même ci produit dérivé ay t-shirt yu mel noonu ñooñu ñëpp dinañ ci mën a gis seen bopp tey ak ëllëg loolu mooy vision wu émergence en réalité te ci loolu lañ jëm ci diir bu gàtt si les Sénégalais bu font confiance Parce que oui, nu croyons à la jeunesse. am na fi léegi témoignage boo xam ni c'était très touchant pour moi à titre personnel et ça ça montre l'état d'esprit loolu dafay wane li ma booleeg président Macky Sall effectivement maa ngi fàttaliku en 2014 PAMECAS dañ ko waroon tëj ma recevoir leen en tant que ministre des finances avec un rapport dañ ko war a tëj buñ ko tëjoon it mu jaadu ci jamono jooju ma gis leen ñuy des jeunes sénégalais engagés bi ma leen dégloo bu baax ma gis seen biir détermination bi ñu am pour redresser seen entreprise ma ne leen je vous fais confiance allez poursuivre votre exploitation mais dam leen di xool bés bu nekk nag loolu mooy suivi rapproché bés bu nekk lu ngeen def bu ngoonee foog ngeen rendre ma compte c'est vrai que je n'avais plus suivi et je suis fier de savoir aujourd'hui de 30 milliards vous êtes passé à 100 milliards ça j'en suis très très très fier en fait le président Macky Sall nous demande de faire confiance à la jeunesse et aux Sénégalais. C'est sur cette base que je vous ai aidé. xawma la woon ci aadama xawma la ci aw awa mais bi nga waxeek man samay collaborateur toog technicien yëpp xëcc dem benn boor je t'ai fait confiance je ne t'ai plus revu solo depuis ce jour mais je suis heureux de savoir que vous avez pu redresser cette entreprise. Et je suis aussi très content que Thérèse boole leen ci opération bi tout comme l'autre entreprise dirigée par mon jeune frère Moustapha Sow que je salue, que je félicite, qui est un grand soutien pour nous, un grand soutien pour le président, mais aussi qui est un homme très engagé, un financier hors kon liñ leen dénk jàppale leen ci promoteurs yi mais aussi yéen permettez nu de mettre plusieurs milliards là-dessus jar na ko mais loolu nag ci yéen la dépendre ci yéen la dépendre dinañ leen teg ci kanamu banquier yi dinañ leen jox garantie après avoir vérifié mais li ci des nag ci yéen la su baaxee ba déwén ci waxtu wi bu ñu yàlla mayee dinañ ko multiplier par deux ba nga xam ni ci kanam tuuti ñii nga xam ni ce sont des champions ou ñii nga xam ni c'est des anciens champions xam li nga xam ne mi ngi dox ci biir lutte dina am ci ñoom ñoo xam ne dinañ mën nekk entraîneur d'autres ñëw nekk ay promoteurs ñeneen dem ci des produits dérivés yoo xam ni ci lutte bi la bu boobaa c'est des milliers et des milliers d'emplois que nous allons créer ma leen di sant bu baax maa ngi nuyu doyen Manga ak ñi mu àndal di beral nuyu mon jeune frère Modou Lo c'est vrai maag moom ñoo nekk doo parcelle président Macky Sall moo ma booleeg woon ak moom ça fait plusieurs années boobu ba tey lépp loo xam ni maa ngi koy def dina ci fës taxaw ci nekk sama wet Mook Franc qui est aussi un champion au niveau des parcelles xam nga ni parcelle donc on a un bon potentiel parce que nga 2 aussi mi ngi fi mag moom ñëw dëkkandoo parcelle mais c'est un exemple que je donne mais ñëpp xam nañ ni buñ ne lutte ci biir Ndakaaru Fass la jógee kon Moustapha maa ngi lay nuyu maa ngi lay sant et j'ai vu ton engagement et ta générosité parce que li ñu fi dajale tey ginnaaw yàlla yow la dinañu waxtaan nag après ci retraite yi dinañu waxtaan ci sécurité sociale parce que justement pour éradiquer pour lutter contre la pauvreté secteur yi nga xam ni nit ñi foofu la ñu gën a concentré wu ndax ñu suñu koom-koom bindoo am nañu ay entreprise yu mag dëgg la mais lii nga xam ni économie sociale la lii nga xam ni économie informelle la mën nañu ko tuddee noonu buñ ko organiser jàppale leen yéen ñi nga xam ne vous êtes des pionniers je suis sûr ni nga ko waxee léegi au lieu de vingt tu vas employer dès l'année prochaine cinquante ou cent ou deux cent moo tax say frais ni la ko wàññi nga wax léegi ci sponsoring c'est vrai nos entreprises doit participer davantage mais ne seen xel dal dina am feneen fu ñu ko organiser bi may def déclaration de politique générale waxoon naa leen ni dinañu xoolaat code général des impôts incha allah ñu ngi ciy liggéey bu ñu yàlla maye li ñu bëgg deux mille vingt-quatre dinañ def ci cote bi loo xamante ni du jar ñu ne leen dem leen jàpp ci ndax dañuy am intérêt dem jàpp ci c'est dire que avec le président Macky Sall ñun du ñu làmbatu xam nañu exactement fi mu war a dem ndax moom bi muy décliner vision bi dafa décliner vision wu vingt ans mu am ay jéego yu ñuy teg mais même bu ngeen gisul dara xam leen ni am na ñu nekk ci biir réew mi nekk seeni bureau di liggéey réew bi pour vision bi nga xam ne président am na ko dans les vingt ans ñu mën ko atteindre ma ciy sant bu baax les services du ministère de l'économie ndax loolu bokk na ci liñ leen dénk kon Thérèse maa ngi lay féliciter di sant mon neveu Pape Diouf ndax maa ngi moom ca Grand Dakar la woon chance boobu la yàlla may ci biir Ndakaaru ak ci biir Sénégal ku ci nekk mën naa wax la ñu bokk ak fañ ko bokkee ndax moom ay waajuram ñun ñoo bokkoon benn mbedd daanaka ñoo dendoon kër ci biir grand ñaari tali mais bi ma ko gisee muy évoluer déjà âge année yooyu ak yar niñ ko yaree ak détermination bi mu amoon xamoon naa ni dinañ ko dégg fépp dinañ ko gis fépp te Pape Diouf affaire yi jeexagul kanam la jëm maa ngi sant ñëpp di félicité ñëpp discours français bi kon tey xanaa mën nañ koo lépp di nuyu effectivement ñu ma koy fàttali Pape Diop c'est vrai ndax am na ñoo xam ni boo leen fekkee ci jataay lu mu xat-xat-xat da leen war a sempi ndax lañu defal réew mi parce que ñoom moodu wala ñi nekk ci ñi leen nekk ci seen suuf bu ñu leen waxul li ñoom Pape Diop def du ñu xam bu leen waxul li ñoom Manga def du xam Pape Diop a fait la fierté de la lutte Manga un grand champion li nga wax dégg naa ko ci arène boobu secrétaire général du ministère bi noté na ko dinañu amaat jataay bu gën a yaatu parce que lépp loo xam ni buñ ko defee dafay neex askan wi lépp loo xam ne buñ ko defee dafay yokk sport particulièrement la lutte li nga xam ne ñun ñoo ko moom loolu duñ ko tardel dinañ ko gëstu ci nu mu gën a gaawe